bu élément bi jeexee euh, coowal Malick Gakou ma jigéen mm-hmm. ak euh, Gaston Mbengue bu njëkk dafa yemoon rek ci malik président Macky Sall lay liggéeyal ñu ni ab plainte jóg na jëm ci Gaston Mbengue ginnaaw ba Gaston génnaat na am na ay yeneen mbir yu ci àndoon bàyyi leen vidéo boobu ah waaye bàyyil vidéo boobu ma jigéen dégg ma <laughs> coow la ba mu amee seen diggante gannaaw ba sax dégg nañ ab audio bu génne ah. gannaaw ba Gaston Mbengue envoyé benn xale bu jigéen di ko wan ni ko ab gànci nga maanaam xale bopp nga hmm. ay la yéwén xale bu jigéen ni ko waaw waaw am maa ngi man moom damay jaay sama bopp waaye yow xam nga ci dara ndax seq nañ ko ma bëggoon la koo may waaye ba ma la ko bëggee may sax ñàkk man dara moo tax mosoo ca loolu lépp ab audio la boo xam ne ma ngay daw ci internet bi diggante Gaston ak kii bi Gaston nag tontuwaat na nee na ñoo ñi gàkku moo leen yónni ndax gàkku loolu ay façon de feeram ñu dem di def façon yu mel noonu dinañ ci dikk ci ab jàngat ginnaaw ba mu nekk président ngay liggéeyal mhm. président Sall moom yi amoon na benn ndaje ca fële ca Diamniadio ca salle boobu nga xam ne moom lañ duppee Abdou Diouf waxtaan nañ fa lu yaatu yaatu nag la ca doolee jataay ba nag mu nga tudd euh, sécurité euh, kii forum sécurité et de la paix wax na ci nag yu bëree bëri réseaux sociaux yi ak ñi nga xam ni moom ñi ciy def ay ñaawteef nee na ba léegi bàyyiwuñ la nga xam ni ña ngay def waaye itamit bala ñoo bàyyi mboolem ñi ciy def ay ñaawteef daañu leen jàpp mhm. Afrique it poñe gi ñu ko poñe nee na système bi bokk na ci li poñe Afrique te nee na système bi ñu cee jaar ba développé sàllaaw moo ñu teeg daan daat moom si euh, système bi nga xam ne moom la ñu nekk mu jigéen bi waaw sooy bu euh, problème euh, kii Gaston bi ak Malick Gakou waaw ñëpp xam nañ ni si ay coowu da ngay liggéey euh, mm-hmm. pour le bien de Macky Sall di ko nëbbu mm-hmm. nañu nangu ne nag loolu moom c'est pas la première fois nit yi di ko dégg wax dëgg yàlla mais loolu lañu war a bàyyi nag te boobu ba léegi waaw mais dafa am ay preuve yu ko war a wane diw boobu dafa war a wane ab signature bu ko fayee wala bu ñu ko recevoir wala bu mu fa nekkee wala ay kàddu d'accord mais diw boobu tamit même su fekkee dañ koy wax ñi nañu indi preuve diw boobu tamit war na taxaw taxawun boo xamante ne nii mais man su ma la tuumaalee ma jigéen waaw ni da dem bërëb sàngam waroo toog di di weddi man maa war a génne preuve yi ni leen ma jigéen a ngi nii fii ma naan dafay dem dafay dem waaw mais lu ñuy wax naan ku ñëpp tëf li nga tooy waaw Ah. mais c'est pas première fois ñuy dégg problème boobu. après finalement si ay ay ay sommation la mujj ak ay yoo xamante ne ni moom nee na ko. Hmm. waxoon na ko sax carrément doo porter plainte coow lee fii ne rek moom Gaston loolu la ko wax mais yooyu moom fa dëgg yàlla jàpp naa ni. Hmm. ku nekk daal ca la nga ne necca moom buy liggéeyal pour Macky Sall hmm. peut boppam lay nax parce que mënoo taxaw si askan wi nga ni man mouvement Yewwi laa bokk après ñeneen ñu bokk ci mouvance bi ñu ñoom ñu wane seen bopp que ne ñoom président Sall la ñu àndal ñuy toog feneen ci ay plateau di la waxal ne la yow mii da ngay liggéeyal diw. Mhm. te doo ci nangu àddu ba finalement xam naa wax ju mujj ji yàgg nañ ko koo wax te mu si si wax tey nag Gaston la. mu dem mhm. ne day tontu. yooyu daal moom bu fa dëgg ak problème mu xale jigéen yooyu <laughs> noonu yooyu. mën naa jàpp naa ne bu yàlla daal amul sens. ay yooyu ay ko tontu. ci audio boobu noonu. keneen am na koo xamante ne nii bu nawoon euh, kii tey. wax fa dëgg yàlla dina am lu bëri. ah mais est-ce que ko même bu dee ay sos sax si yooyu la ñu dugg parce que Sénégal moom dafa bëri léegi. xale jigéen dañoo gaaw ci def nga ma nangam te ay sos kese waaw mi boobu noonu da moytoo fexe. luñ lay tuumaalee. forum sécurité et de la paix waa son bu si li nga mujjee wax sax si laay laay laay ñëw mooy loolu ñuy wax ne euh, peut-être Afrique dañoo war a jugaat ci ci ci système boobu ngay wax mooy mm. peut-être militaires yi dem di jël nguur yi mm. euh, euh, loolu nañ bëgg que mu mm-hmm. jeex fi mm-hmm. bu ñu bëggee loolu jeex fi nag day des ci président yu mel ni ay watara ak ki nekkoon fii gine ñuy jéem di. respecté voilà jéem a respecté li nga xamante ne nii moom la constitution yi wax. Mhm. mais su fekkee ne yow da nga ñëw ne. ba bëgg nañ kat militaires yi ni ñuy fuqatee nguur léegi muy coup d'état nga ne yow da nga bëgg mu deñ alors que yow soo yéegee si si si nekkee si si. nguur gi mhm. yow doo nangoo wàcc. donc day dem ba finalement ñoom ñoo koy mujjee di ko jël affaire bi daal. na ku nekk xool boppam rek bu ko defee coow li du bëri. jëf waay jooba jubba alaaji mbiru Gaston ak euh, gàkkook xale bu jigéen bi waaw xam nga Gaston de ah. euh, li wax dégg naa ko mu ne Malick Gakou noonu lay doxalee ay mbiram ah. mooy yable waaw waaw foofu nag Gaston pour man def na fa erreur erreur lan waaw parce que moom audio na ndaw si waaw moo ne ndaw si moom diital na ab audioom du dëkk mm-hmm. euh, tayit bu dee Malick Gakou dafa yàgg di doxalee noonu Gaston waxuñu kum ko Malick Gakou mës a def. waaw dëgg la maanaam daf ñoo waroon joxoñ ne diw defoon na ko nii da koy booleeg ay xale yu jigéen diw boole woon na ko fekk ay xale yu jigéen mais waxuñu kenn dane façon bu muy defee la mais nañu citeel kenn waaw te Gaston jàpp naa bu ci xamoon kenn mm-hmm, doon na ko wax euh, doon na ko wax làmmiñam damul ci poosam làmmiñam damul ci poosam mm-hmm. donc foofu aussi tamit euh, damay wax rek ne Euh, njuumte la. Mhm. waaw ndaw si nag moom li mu wax. man jàpp naa ni dafa tontu Gaston selon ni mu ko waxee rek mais. Euh, du lenn loo xam ne. dafa ëppal alaaji dafa ëppal jàpp naa ni du lenn lu ñu seq. mais dafa dafa ëppal ci ci biir wax ji quoi maanaam dama jàpp rek ne daf ne wax na jigéen ñi moom kuy dàggasante ñoom mën ngaa dégg lu ne mhm. waaw donc euh, ndaw si mhm. Gaston da ko wax léegi nag mu ne ko très bien léegi nag waaw lii la enfoncé ko nag moom daal di koy nangul loolu ba noppi nag daal di koy commencé wax loolu uh-huh. mais boo seetee di nga xam ni euh, du loolu d'accord mais façon bi mu ko waxee moom moo tax mu tontoo ko noonu d'accord donc moo tax pareen saa yi mën nga sànni sa pikk ah. mais buy del si bul xam bul xam lu indaale ah, donc loolu la maanaam wax nga ma wax ju ñaaw kaay wan la ni maa la gën a mën a wax wax ju ñaaw d'accord donc nag maa ngi digal Gaston mu moytu jigéen ñi moytu parce que jigéen ñi hmm. euh, bu ñu waxee rek hmm. dëgg la de buntu feeñ dëgg la dañuy sof maanaam bu ñu la waxalee rek li gën a garaaw c'est du caagi ni sax wax ci mais yow mi xam mais nit ñi nga xamante ni bii ñoom dañ lay acté selon ñoom ni ñu mel waaw waaw ñëpp daal di sañ ko moom la na caay saa yoo xam ne dañ naan dëgg la nag moom la muy doxee nii xam nga ñooñu ñoom dañ lay acté selon ñoom seen bopp ñoom ne li bu ndaw si wax moom dëgg la dëgg la waaw donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li ci ne léegi nag li mu wax nag ne lii mhm. <coughs> donc Gaston nee na moom day continuer waat di wax li muy wax mhm. Malick Gakou tamit nee na danañ jëm ca yoon mhm. waaw mais nag euh, euh, pour lii ñu àtte ko doy na waar. Mm-hmm. parce que je sais que ni buñ toogee taxaw. Mm-hmm. Gaston dina dina dina dëggalaat boppam ne Malick Gakou moom wax lii. waaw Malick Gakou tamit maanaam kàddoom la kàddu kii rek. Mm-hmm. pour euh, mbir yi. li mën a leer daal. du loolu la quoi mais dama jàpp ni plainte bi la. ñu dem ci saalu Abdou Diouf ba ca jëm ñaajo waaw xam nga <laughs> li ngeen wax sànq jëm ci wàllu coup de waaw.